attaque par ci par là quoi mais man attaqué wala xuloo kay ñaar ñoo koy def kenn déggugul pour Sonko attaqué Pape Djibril Fall wala mu wax ak moom Pape parce nit booy wax tamit dangay wax loo xam si ne réalité ni mu doon waxee dafa commencé débuté comme fii moom dafa ak Sonko dem bi si biir naan non mooy attaqué par kii mooy attaqué par là te Sénégal li li yi wax naan l'hypocrisie est bien sénégalais mais loolu lay nuru quoi léegi nag dafa mel dëkk bi wax dëgg moom maanaam dafay jeex quoi en fait c'est que nee nañ justice est rendue euh, au nom du peuple mais peuple bi joxe na justice boo pare c'est que déjà rapport bi pro euh, rapport waru woon a génne section de recherche te loo xam si ni yow capitaine bi nga xam ne mënoon suivre enquête wax na gisul dara euh, certificat médical gisul dara léegi ñoom lan lañ bëggaat ak pourquoi ñu dem ba ci procès bi ba tey quoi yan preuve yan yan preuve la mën a article ci lan a taxaw ni lii dinañ war a yóbbu yóbbu Sonko ci procès ba pare à chaque fois ñu naan Sonko dafa war a wuy ji dafa war a wuy ji bu wuyjee dana am dëgg ban dëgg lay amaat bu ko capitaine bu ko capitaine doo joxul ban dëgg lay amaat bu ko rapport rapport bi jot man gis ma ban ban dëggal sa mën a amaat bu ko gis war a mën a jox donc c' est que man li ma Sénégal ñuy à part part ñuy wax la réalité di wax dëgg hmm. li nga nga laa gis mais ku nekk dafay loo di wax loo xam ci ni doo comprendre ah jërëjëf am na solo euh, leer naa nañ itam ñu jëli keneen ci 77 227 12 12 allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu baax si ñu noo tudd ak foo ñuy woowee ñu lay fay ñu lay delloo nuyu bu baax a baax hmm. bëggoon di tànn ay kàddu rek man daal lu ma ci bëggoon wax mooy comme comme li gars yi wax rek mhm. maanaam man dama mënul comprendre maanaam dossier boo xamante ne ni dañ ko yëkkati muy viol ñu ne maanaam da dafa dem maanaam dossier bu vide lan lañ koy yóbbee chambre criminelle man loolu mooy sama laaj man loolu mooy li ma jaaxal dossier boo xamante ni ni defoon vide ñu ne dañ koy yóbbu chambre criminelle maanaam yóbbu ko chambre criminelle pour lan la jaay nit ki doole la wala wala wala wala teg ko fan la loolu loolu mooy sama laaj li ma jaaxal man loolu la hmm. si bu amul dara ñu monté ko yóbbu ko chambre criminelle ji nit ki ne criminel la ci loo xam ne dañ ko taqal ndaw si boppam fiite ay audio maanaam wax ak sëriñam ne ko maanaam dara xew sama diggante ak moom lii lépp nit a ko monté te nit ki suñ ñu ci doon joxoñ moom la ndaw si tudd na moom mooy nekk ci ginnaaw complot bi moom moo ne nag bu ma ci feeñ benn moom da koy jàppale loolu yëpp ñu gis ko ay ay audio fii te Mamour Diallo wax ak moom ne ko maanaam procès bi nañ bàyyi mu passé fii ak trois mois su passé rek dina la defaral sa euh, kayit yi nga mën a tukki mais fii fii ku la ne mën na la defaral kayit da waxu la dëgg loolu yëpp ñu jot ko ci ay preuve ak yeneen ak yeneen ak yeneen sa ñu ne lii dañ koy yóbbu chambre criminelle pour lan waaye dem jébbaleen boppam ñu def ko lu leen neex ñoom mu ne loolu nit ñi dañ ciy noppi wallahi du demee noonu sëñ bi Ousmane Sonko man li ma koy mooy bu mu dem fenn bu mu wuyu ñun dañuy résister sëñ bi luñ ci am jël wallahi luñ ci am jël mooy mbir mi lu mu la wax rek maanaam kenn du jël fetal teg ko sa ko bopp ba pare maanaam ne da da di la jëma chantage am na ñoo xamante boo leen defee loolu nga rey leen moo leen gënal te incha allahu rabbi duñ ci am ndam ñoom ndax tooñ yàlla du ko far mukk tooñ yàlla du ko far Firawna moo leen ëppoon doole ñoom ñëpp te yàlla dafa far nguuram mu jeex tàkk lawal ko ci kaw noot ak bu mu doon noot nit maanaam doole yàlla du la ko jox nga koy xeexee sa askan loolu doo ci am ndam mukk te ñoom li ñuy def nii wallaahi alazim duñ ci am ndam. jërëjëf nit ñi dañoo teg projet boo xamante ne nit ñi ñu ci am yaakaar ñoo bëri ay góor ak jigéen mag ak ndaw ah? ñu bëgg a jël loolu noonu pour naax saayal ko teg ko fan ci seen bakkan ak seen bëgg-bëgg ah. te nañu waxante dëgg te yàlla tax. jërëjëf Ousmane Sonko bu defoon tey jii nii nii maanaam du jaral kenn mu si wadal bakkanam ñoo xam ne dañoo conscient xam nañ li ñu bëgg quoi ay magum jëmm lañ ay responsable yor suñu njaboot xam nañ li ñu bëgg bu nekkoon Ousmane Sonko moo def wallaahi laazim kon coow li jeex na bu yàgg mbir mi ne ba mu leeralee suñu bopp lañ jub di xeex waru ma tey ni mu leeree nii suñu bopp 8 mars nan la demee woon dañ koy téye maanaam mbir mi leerul gun woon ni mu leeree nii te tey mu gën a mu gën a leer tey ñu ñu yaakaar dinañ toog di ko seetaan ñii mënuñu wax ba noon ñu mënuñu ñoo noot dañ dem ba ind fu leen neex mënuñoo noot sénégalais yi ndax li nekk suñu fu mu toll ni yàlla moo ko def du kaso la ñu ragal xooloo du dee wallaahi azim ndax ñoom ñi ñuy tëkkoo dee ñëpp bés day ñëw ñoom ñëpp ñu wuy seen borom ku ñu fi tëkkoo dee moom bu ñu rey mu far moom daf fay tax ñu jël auditeur bi mujj ci 77 227 12 ñu ngi lay siyaar baax sëñ bi. ñu ngi lay màggal. Ah, ñu ngi lay delloo màggal baax a baax. bëgg na joxe sama xel ci sujet bi. allez waaw di ci wax commencer d'abord par ci deux points rek premier point bi day nekk euh, intervention Pape Diouri ci point de presse ba mu doon def. waaw allo. yow rek la ñuy waaw ma ne premier point bi day nekk ci par rapport ak. Euh, Pape Djibril Fall wax jooju mu wax noonu. Mhm. parce que dama yaakaar ne nit boo demee bay wax yenn wax yi war nga xalaatat lu bari Pape Djibril Fall leader politique la day politique am na droit politique am na droit fas fa ko neex am na droit ànd ak ko mhm. tamit bu mu tax ngay wax naka sudul noonu parce que ñun ñëpp tamit ay sénégalais lañ réew mi ki ko yor ëllëg kenn xamu ko ku nekk rek sëmbër nga faral ku nekk daa am koo faral rek di wax ci moom lu baax am yàqin ne dina gañe réew mi. kon ñàkk njëriñ am na ba tax nga ànd ak ki nga àndal ne dina gañe réew mi. Mhm. am na yoo xam ne boo ko defee da nga ko war a mën a seetaat. Pape Djibril Fall képp kuy wax lu mel ni li mu wax du génn benn vidéo wala benn communication boo xam ne nii am na ci loolu mu wax Pape Djibril woon ci kaw podium bi nit ñaa ngi woon ci suuf ay micro lañ leen def affaire bi ko doon def direct. Mhm. lépp lu ñu fa waxan xeetu mel noonu nit ñi dañ ko dégg moom bu ma nee taxaw bi ne mi ngi dégg xale yi li ñuy wax di wax genre wax xam ne kenn du ko tudd day jaxasam réew. Mm-hmm. kon ñu toogan ci suuf ñoom war nañ ko mën a dégg làng ak xale yi waxaan dafa war a rafet gis nga dëkk boo ci nekkee nit ñi am bët bu ñu lay xoolee nga am cër bu ñu jox li nga am say morom bëgg nañ ko am peut-être yow la yàlla dogal mu jaar ci yow nga am ko ay nit yaakaar ci yow topp la dafa am wax ji ñu gën a rafetal ñu koy waxee noonu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun ñëpp ay sénégalais lañ ci dëkk bi leen dëkk kenn ñaan yàlla dëkk bi safaan di fa am wala mu def na ko sul noonu teru tàkk kenn ñaanu ko yàlla d'accord suñuy papa bi nekk suñuy yaay suñuy mag suñuy rak. kon lépp lu ñuy def rek uh-huh. uh, jàll ci beneen poñ bi. allo. aloo man ni jàll ci beneen poñ bi nga bëgg a waxtaani waaw beneen poñ bi nag mooy que ni comme Ousmane comme dañ ko woo le 23. dañaan mm-hmm. yàlla yàlla def ci réew mi jàmm. Mm-hmm. mu dem ci jàmm. ñu gis ci jàmm ku nekk li ma wax rek ak sa mbër la ku nekk ak ki nga faral te yaakaar naa ne jàmm rek mën a xaj ci réew mi bu ñu xoolee ñi doxal jàmm ci réew mi ak ñi ñuy envoyé di waxtaan pour jàmm ci réew mi. Mhm. ñu war a mën a bàyyi xel ci ne ak lu mu métti métti jàmm rek ci la lépp xaj Sénégal ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. dañ ñaan yàlla rek yàlla def ci jàmm ak salaam. ma wax ci yëpp ñu romb ko jàll nekk ci leneen loolu daal laa mën si mënti doon wax quoi. jërëjëf ngi jërëjëf ñu jaajëfal leen yéen itam ñu doon seetaan ci 313 digital jaajëfal ko bis bi nekkoon ci réalisation bi agsi nañ